Seydina Ousmane Ndiaye mooy ndax jëmmi sàngara sobe la matière bi liquide bi ndax sobe la waaw Pape Seydi dañu am kontante bu baax a baax waaye xam nga ñun ay jullit lañ amul benn atte boo xam ne wala loi boo xam ne yow da ngay ñëw rek ne nii ak nii lay demee dafa am lu la ci sunna di tegal am charia loo xamante ni moom la la ciy tegal nga ñëw atte woo loola su fekkee ne alquran daf koo wax kooku ci loolu rek ngay jaar su fekkee ne at alquran attewu ko nag wal fiqhu an ma kullu hukmin shar'in jaa ijtihadan doona hukmin shar'an doona hukmin qat'an loolu lay usul di wax léegi nag lu tax dagan na wala daganut kooku moom mooy da ngay ñëw sobe la sobe nag fépp foo xamante ni dafa taq jëmmi sàngara jëmm ci jëmmi sàngara boppam sobe la non Seydou Ousmane du sobe jëmmi sàngara sàngara liquide bi comme ni nga waxee liquide bi waaw mënul nekk soppe Seydina Ousmane. ar rijsu mooy lan ar rijsu mooy lan xam nga alquran dafa wax ne bu leen jege sàngara su ko defee jullit ñi jàpp ne comme sàngara dafa dagan ñoom ñu continuer di ko di ko di ko di ko di ko utiliser après si la Seydina Omar wax ne allahuma bayyin lana fil xamri bayaanan shafiyan su ko defee aaya alquran daal di wàcc bi njëkk wàcc mm-hmm. moom mooy yasalunaka anil xamri wal maysir mm-hmm. qul fiihima biir wa manaafi linnaas waaye nag wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dafa wax ne am na njëriñ njëriñ li mooy yenn saa mën nga nekk nit koo xamante ni dafa dem ba ba nar dee ndax dafa fot te ndox nekku fa dañ koy may mu guux benn guuxu sàngara su fekkee ne moo ko mën a fottate parce que bu ci dee te gis ko naanu ko dafa xaru léegi bi Seydina Omar waxee loolu yàlla wàccee waat beneen Quran wa min na naxiili wal anaab tattaxiduuna minhu sukran wa risqan xasanan su ko defee ñu ne kon kon sàngara dafa dagan ba tey léegi nag ñii julli ñi di kon ne di ñàngara mujj gi yàlla wàcce waat beneen aaya na wala taqrabu salaata wa antum sukara ñu ne kon kat ah boo fekkee ne da ngay nekk di ju di julli lañ la may bul naan sàngara mais soo paree mën nga naan sàngara parce que dafa wax ne bu leen jege sàngara bu fekkee ne yéen a ngi bëgg a julli mm-hmm. encore une fois Seydina Omar ne allahuma bayyin lana fil xamri bayaanan shafiyan yàlla jox ñi at yonent bi mm, at boo dafay leer c'est daal di wàccee boo demee 90 suratul maida ba 91 mu wax ne yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaan fajtanibuhu laallakum tuflihun innama yuridu sheytaan an yuqia baynakum al adaawata wal baxdaa fi lxamri wal maysir wa yasuddakum an zikrillah wa an salaati fahal antum muntahun Seydina Omar ne allahuma intahayna léegi nag rëjsu la la kii amee la utilisé foofu alquran utilisé foofu léegi rëjsu dafa am ñetti rijisu rijisu bu ci njëkk mooy lépp lu ñuy naan wala nga di ko nga di ko lekk wala dara kooku dafa am ñetti part benn bi mooy lu ñuy lekk wala naan lu mel ni sàngara wala yooyu kooku dafay nekk loo xam ne dafa araam am ñaareel ba mooy loo xamante ni maanaam alcool la mais dañ koy dañ koy xeñtu lu mel lu nekk ci parfum wala yooyu noonu wala lu tuuti li nga xamante ne dafay am ci wàllu mboolem soowooy lekk wala yu mel noonu da ngay gis ne dafay am dafay am alcool mais dañ lay wax ne la l'islam maye na ko ñetteel ba mooy rijisul xam rijisul baxari lépp loo xam da koy gis si si géej mooy mbaam xuuxu géej wala wala xaju géej wala fasu géej yooyu noonu yëpp bu dee si kaw jaww ji si kaw suuf si dafay araam mais bu fekkee ne dafa nekk si géej dafay dafay dafay kanam léegi nag dafa am dafay séddale ko si ñett yaay muatharatul aqli tanqasimu ila salasati aqsam dafa am lu ñuy tuddee balaa nga ñëw ci muatharatul euh, mhm. aql mhm. amul fenn ci alquran mhm. wala ci sunna ñu ni jëmmi sàngara sobe la gis ma ko ci benn aaya Mm-hmm. gisuma ko ci benn aaya mm-hmm. mën nga wax na xam nga naan bi màndi mm-hmm. ak jëmm bi soobee la bokkul dam lay jox dalil bu leer nañ ñi boo xamante ni ay boroom xam-xam yoo xamante ni ñoo ñoo ay saxaaba ne yu mag ñoom nee nañu jëmmi sàngara damay wax lu leer nañ olof laay wax tele laa nekk ku mel ni lays ku mel ni almusni ku mel ni Anas ibnu Malik ñooñu ay saxaaba ay borom xam-xam lañ nee nañu jëmmi sàngara du sobe Anas mu Anas moo wax Anas nee na man dama doon séddale sàngara ci këru abi la saxaaba la Anas nee na mu doon nànnal nit ñi nànnal nit ñi mooy comme léegi jamono ji Pape Sidi mooy di servir doomu aadama ñuy naan ba may séddale si ba may séddale rek abital xane yàlla wàcce na aaya buy xaramal sàngara anas ne ma jël sàngara tuur ko ci mbedd madina loo xamante ni sobe la Pape naka lañ koy tuuree ci mbedd madina madina di dëkku leer benn saxaaba yi du xuus ci sàngara si noonu buñ ko turee dem na julli ci te xanaa bu nekkoon sobekee xanaa du takk seen tànk yi ñu dem julli ji amul benn dalil buy wax ci alquran wala ci sunna ne jëmmi sàngara sobe la amul aay yi nga indi yëpp dafay wax ni loo xamante ni baaxul rek waaye waxul jëmmi sobe ñaari mbir moo am par exemple tey mën nañu la wax lii lii nii mën nga ko li nga gis nii baax na mais boo ko naanee mën nañu ay lot bokkul ñaari mbir yu bokkul laa la wax dama ne mbir mën na nekk mbir baa ngi nii ñu la mbir bi du sobe mais soo ko jëfandikoo mën na la indil ay ay jafe par exemple tey mën naa joxe benn exemple man alcool kol ah, col yi ko colee daal xam doo doo kol baaxul. kol force. doo wax col sobe la. Mm-hmm. mais ñëpp xam nañ boo ko jëfandikoo mën ni ay problème gens booy gensman yu bari ci lañ jàngee. jeex na léegi nag problème mooy amul ci alquran damay dévier bépp aalim ci Sénégal ci Sénégal amul benn boroom xam-xam ci boroom xam-xam yi ne ci réew mi faqih wala usuli wala mujtahid buy wax ni sàngara ci boppam jëmmi sàngara sobe la Pape Sidi bu la neexee nga ubbi. xoolal boo julli sàngara takk la da war a jàppi non non kan moo wax loolu. mais loolu ci ay teggin rek. baaxut non non no merci Pape Sidi xam nga lislaam du ay xel du xel lislaam ay texte la. texte mhm. mooy yàlla mooy naan e jëmmi sàngara ci boppam sobe la. wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jëmmi sàngara sobe la benn xadis bi kuy naan abi saalat alxuseyni mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day suñu dëkkandoo yi nga xamante duñu ay jullit ñu nekkal. seen ndab yi nga xamante ni moom lañuy lekkee seen mbaam yi seen bool yeeg seen kaas yi ñuy defee seen sàngara ñoom ci la ñuy yàqal ñuy lekk <laughs> yéen bi saa saa lekk leen ci xanaa bu nekkoon sobe kay yéen dafay wax san bu leen bu leen jëfandikoo bool yooy wala bu leen jëfandikoo pot yooy par exemple tey mun am sama benn copain boo xamante ni chrétien la mu tudd Pierre wala Rose wala Marie comprendre lu dëkk koñ. mu naan sàngara ci ci kaas ba pare mu ma da ngay naan ndox ma ne ko waaw mu jël yalan yalandi rek joxu ma naan su ma ko naanee naanu ma sobe il faut ñu bay if man j'ai du mal à te <laughs> parce que sàngara lu lu lu lu am manipulation humaine la maanaam nit moo ci intervenir maanaam bu fekkee ne da nga jël ndarkase hmm. ndarkase ci jëmm ji araamul mën nañ koo lekk mën nañoo nal ndox mi naan ko waaye manipulation humaine moom mooy jël ko denc ko ci ay barigo ba mu fer ah ba mu fermenté ba mu woy ñu yàq ko mu am alcool léegi processus chimique boobu ngay créer loolu mooy indi araam gi léegi dafa lépp loo jël lu nit hmm. intervenir rek xëy na oustaz col bi ngay wax araamul ci booy kol waaye boo ko fóonee araam. mais loolu mais mais léegi kol boobu. xam nga nit a ko créé Pape si loolu laa wax. waaw man ni ndax li yàlla dama ne dama ne par exemple sangara ba mu par exemple loolu inter intervention mais nag boo ko bàyyi ba mu nëb nga ñëw laal sa takkal sa yére wala nga xenc ko ndax yow sobe nga xenc wala sobe mu la laal. il faut ñu bañ a ménager nu ñu koy waxee sax sew sewu at tey. Moussa Seydina Ousmane euh, Ndiaye. <laughs> loo déggee li mu wax parce que mu ngi may jax dafa wax ne jaxase sama xel bi. mooy addina non non non non jaxase Pape Sidi. addina Pape Sidi Pape Sidi Pape Sidi xam nga jaxase mooy la wax koo xamante ni amul ay argument mais man li mu wax dama indi xadis indi aaya indi Anas ibnu Malik te Anas ibnu Malik borom xam xam nañ ko. waaw lu tax yàlla wax laa taqrabu zina bul laal bul jege parce que boo jegee mën na laa xiirtal ci laal. léegi boo nee sàngara xara euh, jëmm ji di sobe mhm. ñu commencé di ko fréquenter di di ko raay ak di ko jegeeg di ko laal di dem di julli ji bu yàggee day nekk lu banal ci ñun mën nañ cee sax commencé di tërëf waaw mais mais non non xam nga ñaari mbir xam nga ñaari mbir moo am ma ñëw waaw demal sëñ bi li nga tudd sànq loolu lay usul di tuddee murakkab <laughs> murakkab mooy loo xam ne dañ koo toggale yu bëree bëri ngay gis lu mel ni misi wala bëree wala dara dara nekku ci mais yam boole moo tax mu xaram qaayida yi dafay wax ne anna shay'a bi xayrihi xayruhuma maanaam mbir boo xasee ba booleek leneen ba mu jaxasoo rek loolu boobu boobu dootoo ko atte ci atteg cosaan nga waaye moom day am atte boppam moom dafay wax ne amut benn euh, euh, dalil argument ah. wala argument boo xam ne danga ko indi mhm. ñun duñ inventaire suñu waxi bopp mhm. waaye ñun yàlla daf ñuy indil alkuraan mu leer lépp lu leeru ci alquran xadis moo koy leeral wala xadisul qudsi mhm. xadisul xadis mooy loo xam ne moo ko wax xadisul qudsi mooy loo xamante ni yàlla moo ko wax yonent bi te jaarul ci alquran alquran dafa leeral li muy wax ba pare cee leer ko léegi nag wal fiqhu bu ko déglu de wal fiqhu almu kullu hukmin shar'iyyin bu ko déglu jaa amal su fayda continuer li nga jaa ijtihadan duna hukmin qat'i bu ko déglu de dama koy non dama koy bàyyi moom dafa laaj may ma Seydina Ousmane dama lay bàyyi nga continuer xool du ma wax 30 secondes 30 secondes dafa bëri yow wax nga li nga wax ba pare may ma rek ma développé dama lay relancer pour nga dem xam nga dama la ne jëmm ji ak naan bokkul yàlla naan gi la tere ak jaay bi ak séddale bi dafal nànk rek ak defar bi waaw pour nga continuer yàlla lim tere bëri na leer na léegi bàyyi ma merci dama ne jël ko nga naan ko ak jëmm jaay ngi nii sobee la du du bokkul ak naan ko yàlla yemut ci naan aaye la ko naan dala ko aaye jaay dala ko aaye defar dala ko aaye séddale si siira si siira ñi jàng ñi jàng siira la 30 secondes la waxoon de may ma ñëw def nga une minute doon nañu doon nañu waaw doon nañu ci église église église gars yi naan sàngara ba pare ñu jël taabal yi teg jël jël butéel yi teg jël si yaar allahu akbar julli. Ah, demal loolu kay loolu kay mais mais fu ñu sujjoot jamono jooju ñàkk su ma neexee parce que su ma neexee léegi boo demee église di julli eh, ma neexee jàkka jaa ngi non parce que jot man parce que li ma leer naa église julli jot ma bay dem jàkka ja ma ni prêtre bi am nga si jaara mu ni am mu ni am naa ma ne ko poussé ma julli waaw mais selon la religion dafa am ñuy siifur <laughs> te bu ñu daggee it toog rek. sa veut dire que dafa am lu ñu war a jëriñ. askan wi Ousmane demal. léegi nag dama laa wax nee la wal fiqhu wa ilmu kulli xukmin shar'in jaa ijtihaadan duna xukmin qat'in mhm. dafa am ñett lépp lu alquran wax kooku dafa leer. dama ciy ñëw waaye nag li nga xamante ni moom lañuy ñuy euh, fiq jàngal usul jàngal ñi ko mooy dafa am lu ñuy tuddee. loo xam ne ahkaamul aqliya la am loo xam ne xisiya la am yoo xam ne qataaya la léegi ahkaamul aqliya comme ñu ne la euh, benn euh, ñaar xaajam benn la kooku ci xam-xam ak ci xeel boo koy def rek da xam da xam ne un boo ci moyen deux boo ci moyen un un mooy des mhm. kooku ahkaamul aqliya la am loo xam ne ahkaamul hassiya la mooy safara sii dafay tàng nga jege ko nga nga laal ko rek lakk nga xam ne kon safara fi dafay lakk loolu yëg-yëg moo la ko jox am loo xam ne xataaya la comme ñu ne la ñu ne ñu ne euh, julli juróom julli xam nga yàlla dafa wax rek ne julli leen waxul ne julli leen juróomi ràkk ñett ràkk nangam nangam mais loolu fiq ak ak borom xam-xam yi ak ijtihaad mooy ñëw ñu ne tusbaar ñett ñeent ràkk la timis ñi nangam nangam huit heures huit heures dañ ko dañ ko mën duub la luñ sopp la ak yenu mel ñu ne wallaahi yàlla kenn la nu mu tuddoo julli dafa war mhm. sa euh, njaaloo dañ ko araamal xam nga loolu alquran tudd euh, direct léegi nag moom li muy wax alquran dafa ko tudd direct yàlla dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun yàlla dafa wax yonent bi ne ko gis nga question bii Ousmane Oustaz Ousmane laaj la maanaam danañ danañ la ko laajee buñ la ko laajee lii nga leen di tontu. lan. in yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun léegi képp koo xam ne dictionnaire boo mën a am wala bu fekkee ne yow arabi sànga wala loo mën a xam nanga nga tàppee ar rijsu mooy ne ar rijsu mooy alxasir an najis mooy sobe. te loolu alxuraan dafa utiliser baat bi carrément ne euh, li nga xamante ni moom mooy sàngara kooku sobe la léegi nag. alxuraan bu ko waxee loo fi ñëw di wax. léegi nag alxuraan moom moo wax ne sobe la léegi. Ah. ma ñëw amoo fi di léegi nag wal xukmu waajib dégradé waa bàyyil oustaz mi mu léegi léegi léegi ah, oustaz al dafa am usul yoo xam daf koy teg wal xukmu waajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruh ma ma xurrima maa saxiixi mutlaqan wal faasidi min aaqidin haadaani aw min aabidi mhm. kooku moom la usul wax dafa am lu ñuy tuddee loo xamante ni lu lu war la wala luñ sopp la xam nga tey lu war yow da ngaa war a euh, loo xamante ni yàlla daf la ko waralal am na loo xamante ni lu dagan la comme reer yow bu la neexee nga reer boo réeru doo ci am bàkkaar bu la neexee nga añ bu la neexee nga lekk sandis bu la neex lu la neexee nga mën ko lekk mais doo ci ñàkk maanaam boo ko defee am ci yool boo ko defut tamit doo si am bàggat parce que boo ko defee di nga am kàttan ba mën a taxaw jaamu yàlla ak yeneen yu mel léegi nag fal waajibul maxkuumu bi thawaabi fii fi'lihi wa tark fi liqaabi wa nadbu maa fii fi'lihi thawaabun wa lam yakun fii tarkihi iqaabun wa laysa fi lmubaaxi min sawaabin fi'lan wa tarkan bal wala iqaabin wa daabitul makruuhi aksa maa nudib kadalika alxaraamu aksa maa yajib dafa am lu ñuy tuddee lu xaraam am lu ñuy tuddee luñ sopp am loo xam ne mabu euh, luñ luñ luñ luñ sib la am loo xamante ni dafa dafa xaraam léegi nag yow mi nga xamante ni yaay yëngu si wàllu diina wala nga utiliser ay masaayil fiqhiyya il faut nga mën a maîtriser war nga mën koo nga mën koo teqale léegi nag dafa am loo xamante ni am na benn sew sew boo xam ne nag nekk na foofu ci diggante ay dorog wala ay sàngara ak yu mel noonu su fekkee ne sàngara jëmmu jéeg yëpp dafa xaraam ndax lan li muy li nga xamante ni moom lay soppi mooy euh, la anna shay'a bi xayrihi xayruhuma waaye nag lu mel ni ay cocaïne wala dóob wala LST wala yu mel noonu su boobaa dafa am yoo xam ne foofu la amee ixtilaaf mais si wàllu xam amul ixtilaaf ixtilaaf bi am foofu mooy ne dañoo wax ba ah, nag li nga xamante ni moom mooy dorog wala yeneen wala lu ne xasis mooy yàmba bilaay faale mooy kii li muy wax dafa leer kii li muy wax dafa leer pare naa si yow bi kii waxee yàlla moo ni sànq arrière arrière arrière Oustaz dégradé Oustaz dégradé arrière léegi nag léegi xoola léegi nag lu lu Oustaz non Seydina Ousmane Oustaz léegi nag li nga xamante ni maanaam mais Pape Sidi maanaam dafa am lu ñuy tuddee muskir Seydina Ousmane waaw mañaan la benn <laughs> bi nga waxee ne yàlla moo waaw non Pape Sidi xaaral la wax ji non non maanaam man pare naa ci wax. léegi nag dafa am lu ñuy tuddee. ay waxu ku daanu sareet lay wax. léegi nag dafa am lu ñuy lu ñuy tuddee. sangara dafa araam tifaaxan. naan ko. laal ko jaay ko séddale ko. léegi nag léegi nag dafa am lu ñuy tuddee dafa am lu ñuy tuddee muskir. am lu ñuy tuddee dafa am lu ñuy tuddee. muskir jarul loolu am mu xaddir jarul mu kiis kii la affaire yooyu yëpp ngay wax jarul. maanaam xam nga. oustaz fiqh dafa am. jaru ko dafa am yu muy taxawee. jaru léegi dafa am yoo xam ne lu mel ni tey yamba. dafa xam nga xob la xam nga xob la kooku utiliser gi dafay aram mais laal gi du aram parce que gàncax la goo xam ne dafa nekk si suuf laal gi aramu laal gi laal gi comme mu laal la tërëwul taxut booy julli nga ne da raxas yére bi wala dara mais utiliser gi parce que dafay soppi sa xel mën naa dem ba mhm. yóbbee leneen ak leneen te comme li nga wax noonu ci olof sànq moom la xadis wax ne képp koo xamante nii da ngay jaay sànq laanal xamru wa shaaribaha wa saaqiha wa asira wa mottasara même ki nga xamante ni da koy dem yëkkati ko yóbbu ko fee sax wala ñu jox ko njëg gi wala dara sax kooku dañ loolu dafay nekk loo xamante ne luñ luñ luñ luñ xaraamal la su boobaa nag loo xamante al alquran dafa wax ne rëcc sun wax ne euh, yu mel noonu ak lim ci wax wax ne bu leen ko jege wax ne nangam ak nangam ñëw mujj albati ko nii nii sobe la bu leen ko jege dafa xaram fajta ni boobu la dafa am loo xam ne nag kulliya lay doon am loo xamante ne dafay nekk yaani loo xam ne li dilaala aw li subuha wala yu mel noonu su boobaa si qiyaas la ñuy ñëw mais li alquran wax ko xadis wax ko charia wax ko mooy dafa xaram mutlaqan léegi ma teewaat beneen question. Mm-hmm. non non non Pape Sidi. waaw baal ma baal ma. non non non non non non non Pape Sidi. mënatoo wax leneen lu ñu wax rek du ñu damay wax non Pape non am non non Pape Sidi foo ma wax de. damay wax waa recul parce que moom dafa ne masala bi amul ixtilaaf caméra bi du la mën a génn. waaw dama ne dama ne masala non Pape Sidi foo ma wax de. parce que dafa ne masala bi amul ixtilaaf. masala bi am na ixtilaaf. xam nga xamru yàlla bu ko waxee mooy lépp loo naan mu muur sa xel. yaa ta tuddul whisky tuddul dara alxamr rek doo mënta naan muur saga mais dama ne man waxuma naan ji de naan ji beneen domaine la beneen débat la mais dama ne jëmm ji ci boppam jëmm ji ci boppam jëmm sàngara ci boppam du so bee. waaw laalal ñu. waaw waaw xaaral pare ma du sama wax. al muzni moo ko wax. muzni daaw sud al lays moo ko wax. yàlla moo wax ne. mais Anas ibnu Malik sangara sobe la. non non non non attends non attends non Fatou non attends. waaw waaw dellul ginnaaw non non attends. loolu fiq la waaw mais dëgg la waaw mais mais mais non non mais fiq la fiq la. lii fiq la lii du fiq alxuraan la fiq la li ma lay wax nii alxuraan dama ne waxu saxaaba waxu waxu yàllaa ko gën a foor waaw dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ma ni la aleykum bi sunnati ñooñu saxaaba dinañ wa sunnatul xulafaa rachidin adduha bi nawaajiz léegi gis nga li wax si xadis dafa am lu ñu tuddee muttafaq alayhi am muttasil am mawdu am yu mel maanaam jaay ma gerte jaay ma gerte li ma lay wax xam nga lan la ma demee argument li ma wax. dama ko wax moom moom mu du ixtilaaf dama koy génne ma ma lii ko Sénégal dégg ko. waa déglu. borom xam yi dégg ko. boo ko liiree faale wuñ la. man je deviens tous les ulamas Sénégal demi sangra du sobe. voilà waa amul kenn ku mu mën a wax si at Sénégal fi Sénégal foo mënta jàng fiq boo mënta jàng nga ne ma jëmmi sangara sobe la amul. xëy na sa alliwa soriwul rek. Ah, waaye yàllaa ko yàllaa ko moo ñu wax yàllaa ko Pape Sidi du sama wax. ñu dañuy naq. bul wax waxu dañuy jëlee dafa naan dafa naan non Pape Ankay. bul wax waxu addis wax hadis. suñu waxee alxuraan addis amu fa day wax hadis. bu ñu waxee alxuraan. non hadis non hadis mooy leen alxuraan. déedéet léegi gis nga hadis wax noonu illaa li tubayna linnaasi maa nuzila ilayhi yàlla dafa wàccee sunna wàccee hadis bu mu dee alxuraan yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam gis nga moom li muy wax ni comme yàlla ak yàlla comme si neuf xam nga li muy wax dafa am lu ñuy tuddee muttafaqa alayhi waa recul non non non attends maa ne ngay amal maa ne maa ne problème mooy duñ la mën a question non lii dafa ma ñor waaw waaw léegi dafa ma ñor xoola ma eh. sa bànneexu bakkan man xamoon ne sàngara fii la toll ci non man <laughs> man waxuma sa ba Pape Sidi Pape Sidi sàngara sobe la Oustaz Ousmane Dia man waxuma sa bakkan l'islam kenn nu ci waxee sa bànneexu bakkan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp ku ma fenal préparé sa sa ban ci safara dëgg la ñun du ñu wax ci lislaam dégg la di sosol yàlla su yonent bi ñu amuñu xam-xam boobu ñu capacité bi dëgg la mais dañuy jëlee ci ay boroom xam-xam yu mag ñu ñëw wax ko xam-xam noonu lay demee dañ koy naq la dëgg la dama sàngara bu dee consommé saxaaba yi du ñu ko jël di ko tuur buntu Madina saxaaba yi di xuus di jullit yi xadis la. léegi léegi pare na foofu xam nga dafa am lu si xadis lu ñu tuddee muttasil am lu ñu tuddee mawdu am muttafaq alayh. waaw léegi xadis bi muy wax xadis mutawaatir la xadis mutawaatir la xadis wax. ay waay arrièreal yow mi ba yow ma ko ngàdd. parce que wóor na parce que attends. maa ngi lay xool xool saa yoo saa yoo avancé. plan bi la ñu génne a man xam-xam laa ko man man man waxuma sama neexu bakkat. waa dëgg la. man rus naa. waa léegi ñun am nañ droit bañ laa gëm 2STV télé bu mag. waaw ay boo xam ne ko sa man man man xam-xam laay wax. oustaz mun ngaa gis oustaz buy défendre nii sàngara. <laughs> léegi nag dafa mel ni Serigne Touba ñu ne Serigne Touba moo wax dara. ñu ne Serigne Touba moo ko wax leer na. ñu ne Serigne Touba moo wax lii. léegi nag kilo ko nettali ba ci diggante bi dafa am ñu ne avocat diw da jaar. daa jaar si diggante bi te avocat boobu moom xam nañ lim xam xam nañ maanaam fooram ak li muy def. yàlla bu mu sant Diouf sax waaw comme dox dox na sa diggante bi rek dañuy wax ne xadis boobu dootuñu utiliser parce que kooku noonu xamewuñ ko wax dëgg mën naa inventaire mën naa wax leneen dafa am xadis yu bëree bëri yoo xam ne si lislaam ay junne junne xadis yoo xam ne daif la wérul mais booy andi bu alquran xasee ba tegu amatoo benn dalil wala dara. te alquran moo moo man hadis bi dama jël sama. téere benn waay moo bind rek wuyu ma déglu non quatre heures temps sama téere al fiqh mu yassar téere la boo xam ne xam nañ ko dama toog gëstu ñu dañoo bàyyi jël big di bindi fooy ñun téléphone lañ yor hadis bi boo neex nga firi ko yow. an ibni abbas radiallahu anhu anna rajulan kuntu saaqiyal qawmi fi manzili abi talha bu paree nga rajul bi kan la ma ne an anas ibnu ma radiallahu anhu qaala kuntu saaqiyal qawmi fi manzili abi talha leer na wa kaana xamruhum yawma izin alfa diiqa fa amara sallallahu alayhi wa xaaral fa amara sallallahu alayhi wa sallam alfa alfa bala maa xaaral munaadiyan yunaadi ala inna alxamra qad xurrimat bu paree rek wax ñu aaya bi qaala fa qaala li abu talha uxruj fahriqha fa xarajtu fa haraqtuha fa jarrat fi sikakil madina anna alxamra law kaanat najisatan lamma araquha fi turuqil muslim fi ngir yàlla ab ma baal nga dem

léegi firil ko ko nga wax ni aaya bi yàlla wax ne sàngara dafa annal xamra annal xamra loolu wax nga ko leer na da nga waaw law kaanat najisatan lamma araquha fii turuqil muslimin mooy li ma la wax sànq dégradé du nit waaw non non fir moo ko firi kay bilaay wala wala wuda non fir noo déglu fi dama ko dem bilaas moo ko firi ba bàyyi la fin bi ma demee toog di déglu fir moo fin bi barke rasul xam nga li ma la wax sànq su fekkee ne xadis dafa ñëw benn mbir ñu ne kii daf ko wax man ma firi man d'accord naa yow yow borom xam-xam man nga macha allah mu tane nga jàngee mais firi lu ma lii nga ko new saas xam nga gis nga dafa am fu diine toll mu ngi nii annal xamra law kaana lama araquha fi turuqil muslimin leneen yu dul yenn détail non non oustaz oustaz fa fi lu ma li nga innamal xamru wal maysiru aaya bi yàlla wax ne sàngara sobe la yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu ñoom ñëpp la boole ne rijsu min amali seytaan mu ne seytaane moo ñëw di def seen xel nan naan leen lii du sobeek boo ko defee nii nangam ak nangam fexe ko mu ne seytaane seen noonu la te seytaane innamaa yaidukum seytaana ngir ngeen am ay problème seen diggante ngir am ngeen ay jafe-jafe wa yasuddakum an loolu nag daf leen i fexe di leen i tëj ba dootu leen mën a tuddati yàlla wala ngeen di def wa yasuddakum an wa ani salaati mu leen wax nañ ne lii nii maanaam man nga laal fii wala nag looloo tax aaya bu njëkk bi ñëw ne wa yattaxiduuna sukkaran wa risqan hasana beneen aaya bi ñëw ne wala taqrabu salaata bu am doon sukkara dara aaya ñëw ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali seytaan kooku nag bu continuer ba fay aaya ba jeex rek mooy xewee la ne eh, Seydina eh, Omar radiyallahu anhu ne allahumma intahayna si la daal di jeex mu jeex. non prégument damay wax nga si yokk non non non mais sa suffit ça suffit yàlla nee na sangara hmm. sobe la jeex na Seydina ah, Ousmane Ndiaye yow Oustaz dégradé li nga wax Oustaz dégradé li yàlla ko wax dama lay laaj li yàlla ko wax dama ne Oustaz dégradé lii aaya la boo jàng ci alxuraan. mais ko firi d'accord ba ko wax. waaw yàlla ma wax mu leer nañ su fekkee moom lay wax d'accord ci moom ay wax yu mu inventeur xëj mu jaar ci ay diggante yoo xamante ni ay innamal xamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun mina fajtanibuuhu la'allakum tuflixuun la mais dama ne ba doo xam ne dañ ne jëmmi sàngara ci boppam ak jëmmi carte. dama am yeneen dama am yeneen non non man man xam man boo xamee sama sama bakkan jëmmi sangara ak jëmmi carte ci boppam. yeneen question la xaraamul jëmmi ci. lu dul dalil moo ñu préciser. wax ci. dalil dama amul benn benn benn. dama dévier tey tey tey ba ilaa yow mi diin may wax ak hmm. kenn ci biir réew mi ak bitim réew bépp aalim. même ligue nationale des oulémas du monde mënuñu ma wax oustaz jëm mi dafa leer de jëm mi jëm mi sàngara waaw dafa xaraam oustaz xaraamul bu xaraamoon jëmmi sàngara bu xaraamoon duñ ko jël madina lu mu toll ñu koy sotti ci tal ci ci mbedd madina bi fii sikakil madina saxaar bi dafa xuus dem seen yoon waaw oustaz yaa gën a dëgër bopp supporter Barça wéerul léegi baatu jigéen